musuma dem ci làmb di am xel ñaar muy ma taayal ma sawar lu mën a doon. mais non si sa yaram laa wax au fur et làmb bi dem ngay gën a nekk en activité. waaw xam nga mbër boo duggee ci làmb bàpp yeeg yëpp yow pour yow da nga war a ñëw rek bëree yow tant que duggoo ci enceinte bi sa yaram du firi nu mu war a firi hmm. parce que booy ñëw ak lépp pression la. non waaw pression la mais man damay seetaan làmb. dama laa seetaan nga bëre ñu daan la ma seetaan la nga bëre nga daan ta bi ma seetaan ñu bëre nga bëre ñu daan la lu làmb ji di gën dem rek mais gis ni sa combat contre Balla Gaye dama dem ba bi waay bi ngeen nekkee ci diggu géew bi gisatuma la a loolu yéen a ko seetlu yéen ñuy seetaan mais xam nga mën na am ñun ñu nekk ci biir géew bi duñ ko seetlu mais yéen ñuy seetaan lu ngeen di ñu duñ ko duñu xam yéen a mën a jugé xam nga waaw amoo di ko encouragé war rek di ko wax dafa ñàkk ki xam nga te lu ñuy wax làmb noonu la xam nga suñu mag la jëriñ ci làmb def ci lu nekk ba maa ngi koy wax rek suñu interview bi passé ba muy bëreeg Bombardier wallaay la azim dama ko yéenoon ndam ji ndax Bombardier boobu nekkoon na des arènes pare lu ne lu ne la daj ci làmb xam nga dafa mérité woon nekk roi des arènes loolu nag sport moom mu tëddee noonu xam nga di ko wax incha allah di gën yàlla na ko yàlla defal lu daj ci carrière bi jaay Seydina a ma dem ma dem léegi nag dañuy dugg. vif du sujet vif du sujet mooy campé nañ débat bi dugg nañ ci mystique dugg nañ ci combat dugg nañu ci euh, xar fa fuufa dugg nañu ci leneen lu nekk léegi nag dañuy dugg ci vif du sujet vif du sujet mooy le combat au vrai sens du mot mais benn waay fàttali ma ne ma ama Sène mi ngi jëloon roi bi le 28 mu ngi ko ñàkkaat le 28 taarix la am na lu xew wala amul lu xew loolu yëpp dinañ ci dikkaat ci ni muy gën a yaatoo léegi nag Tapha Diop moo bëgg huit rek tey la dix-huit non. Tapha Diop moo bëgg huit rek tey la dix-huit de. encore Moustapha yow loo bokk ak dix-huit après loolu dina leer wala huit. léegi mbokk yi dañuy dem seetaan combat Modou ak nga xam moom mooy Eumeu Sène stade Léopold Sédar Senghor la woon euh, Moustapha mii moo ko tëggoon tuddee ko Youssou Ndour bi génn léegi ci ligne bi ñu ànd dem seetaani combat Modou Lo ak Eumeu Sène ñu dem. Bécaye booy xool ambiance bi euh, ci stade bi wuyu na boromam combat royal la loolu mooy loolu moo doon prouver que ni Eumeu mi teg na couronam en jeu te bu ñuy xool ci publicité bi sénégalais yi dañoo gaaw a fàtte dañu gis Eumeu Sène toog teg li nga xam ne moom mooy turonam woo la yow ci biir publicité bi nga nekk géwél bi ñëw yéene ni. man buur ne buur nee na. teg na couronne bi. ah. ma tagg ko. waaw. nu ko ah. yaa daan diw. yaa daan diw waaw ah. buur ngi nii. waaw ku ñu mën a mu am mu am ku daggee ca lang ga. daggee ca lang kastalu la sax daw. waaw papis la. waaw ñëw ñëw taxaw fa kastalu ne ko buur nee ah mais mais dafa am foofu moo ci bëgg wax ah. ñëwal mooy aar bi ñoom ñaar ñu wone ci ah. affaire boobu. Ah. non Eumeu dafa joué le jeu. waaw nekk le roi. oui xam nga buur day war boo géwal bi géwal bi ñu wax. bi ma waxee ba pare mais boo gisee ni Eumeu ni Modou loo dawee di ñëw. non c'était super exceptionnel. non j'étais content. parce que damaa gisaat leneen. lu dul làmb gis aar. boo xamante ne ñoom ñaar dañ ko wane ci affaire bi mm. dégg gi ñu am ci jour boobu mais loolu yëpp Moustapha Diop la li ngay wax léegi grand boubou bi waaw booba grand boubou booba laa sol mm. man bi ma sol noonu nga sol mais boobu beneen laa solo mais même chose la daal gënoon a rafet sax même ci jouru combat bi mm. xam man wax naa ko ci plateau bi nit boo doon mënoon am ñaari plateau benn plateau la noonu am ñaari ñun ñëpp ñu sol tenue traditionnelle mm. indi laa lingeer mu ñëw toog mm. ñaari mbëri dem ba ku daan ñu ñëw teg la nga takk sa couronne lingeer gaa nga lingeer gaa nga parcelle moom xaw ma ci fan la nekk ci diggante. li nga ne li nga kaa nga parcelle wu loolu leer na mais ah keroog keroog Eumeu Sène ak Modou Lo ñi nga doon jiiyantee. waaw ñu ne lingeer bi lingeeru Moustapha la <laughs> loolu leer léegi mbokk yi ñu dem xool yi Eumeu Sène ak euh, Modou Lo ñu dem. il fait 19h25 Eumeu Sène Modou Lo ñoom ñaar ñu ngi dem toog Eumeu Sène ak Modou Lo ñoom ñaar ñu ngi dem toog Eumeu Sène a ngi dox ci kawam dem na waaye demul. bàyyante ñu ngi leen tekk ñoom ñaar Ama Sène ak Modou Lo ñoom ñaar ñu ngi leen doomu Tapha Gueye ak ku ndeyjoor tànku càmm toujours day may ci diggante ñaari mbër yi day saan ñu évolué day lay leer couronne bi day dellu Pikine wala couronne bi day dem Parcelles Assainies te au moment à l'autre dina leer bu Tapha Gueye Modou Lo dafa war a utiliser crochet droitam Ama Sène utiliser crochet gauche daa mel ni bëggul arrière déedéet dafa taxaw dëggal boppam. Eumeu Sène bépp na bébaat. waaw gis waaye Modou Lo fi taxaw bougé wu ko. ñoom ñaar ngi damba tey baaraam. mais bu Modou Lo tey tey baaraam. soo Eumeu Sène départ rek Modou Lo def tout arrière xool waaw. Modou Lo prend son temps. booy xool. war a utiliser ay compte peut-être. loolu lay loolu la dugg. Moustapha Gueye ci li ma jàpp. loolu moo ci am sax ma. waaw Modou day xaaral ma ñëw. ma koy indiwoon loolu laa koy ma ñëw. utilisé la. ndax Eumeu dina dem. ba ko dégloo nag yaa ngi ko dégluwul nga réagir. nga actionné. loolu di fi leew too. Modou Lo bëgg na jëm rek ci góosu mais sànni mais. ah dafa fermé dafa ko fermé dafa fermé. c'est difficile ñoom ñaar seen loxo ci kanam dal seen gauche dafay jafe. jafe la yow bu dal ba ci ginnaaw. bien sûr Moustapha. ñoom ñaar ñu ngi leew too pour bañ dalagul. amagul. minutes Mohamed daanaka bëre nañu 3 minutes ñoom ñaar. diggante Modou Lo ak Eumeu ñaar ñu xamante ñooy bëre. ñaar ñu bëgg combat bi ñooy bëre. ñaar ñu Sénégal jox ñooy bëre. waaye di bëre teel a drapeau di ku rëy. nit ku yàlla baaxal di Youssouf Madiagne Ndour Moustapha Gueye ay bii bés kenn du ko sax sax. l'histoire retiendra muy noonu ñoom ñaar ñu ngi dugg ci quatrième minute bi ñoom ñaar Moustapha Gueye exactement daman tey baaraam ba tey Modou dóor na Amasa dóor na Modou teg tànk waaw dóor fayu dóor fayu bu dee na Modou fayu na ne dañoo jël suñu temps moom ñaari mbir. combat bi ñoo combat bi. waaw dóor ma fayu dóor ma remise. dañu war a ñoom ñaar ku nekk bëgg na combat bi bëgg na bëri. bëgg nañu bëri bëgg nañ xeex waaye xeex lañu gisagu gisaguñu bëri. dëgg la mais yaakaar naa ne kenn ku ci nekk buntu ngay xool. parce que mënuloo tëboon suñu jëmbat seen. laa ilaaha illallaah lu jaayam. lu war a mun nekk la pourtant nag. alhamdulilah leen demande ñu bëri. ah bon après cinq mille presque de combat. Thiès ndeysaan am am na ku defar Léopold Sédar Senghor bi ay bis ay bi ñoom ñaar di leen doon Modou Lo door na di gauche am na solo ama seen Modou Lo fii da ko jam en avançant un pas c'est important ma defi nit war a nekk action réaction waaw mais ku ko dóor mu dóor seen ñëwul pour sax-sax de dafa nit fot ci ndax fotaat dëgg la waaye nag su ngeen daje nag yaakaar naa ne ci la pexe yi war a génn man ni mu doon actuellement bëgg na contact waaw bëgg na contact bañu ko mun na bañu contact ah daw contact est-ce que dafa war a xaar daw contact eh laaw la joxe woon. bien sûr combat toujours désordonné. bien sûr laaw bu jëmee teg ci ci kanam bu jëmee teg ci ci corps. ça c'est important. Eumeu Sène Modou Lô ñoom ñaar ñu ngi leen doon. stade baa ngi ne tekk ndeysaan. dañuy yëgee baax. waaye gars yi moom moo. mooy que ni sax noppi nañu. ñëpp ay noppi. da ngay ñu fàttali moom la ñaari mbër bu ñu bëree foofu. ak soxal sa ñaari picc bu ñuy bëree sax daa ko faral. bu la yow laa koy laaj. man yow laa faral Moussa Faye. man man faral la man yow. yow laa Moussa Faral. ñu faralante maa ngi. waaw waaw ñu faralante. ñoom ñaar ñu ngi leew too. Eumeu Sène Modou Lo ñu ngi leew too. Pape Modou Lo Eumeu Sène. roi des arènes la ñuy bëree. roi la ñu ko tuddee Moussa Faye Gueye. Youssou maa jigéen lay wuyoo. combat ndax du dem huit ans. ragal nga ko. Eumeu Sène a ngi abrégé combat bi. pression. kon tax Eumeu Sène a ngi abrégé combat bi. tax la bëgg. Eumeu Sène a ngi abrégé combat bi.

amul jàppante amul jàppante Modou moytu na jàppante bëggul benn yoon contact toujours fermé na droitam léewtoo bi yëpp Modou nii lay def di préparé pour dóor te xam na ni li mu bëgg ëmm dina ko ko may parce que am na gauche bu mu lancé gauche bi bu dalee bu dalul yëpp mbër bëggul loolu il faut mu fayu ji Eumeu def na ay détails ci biir combat bi yoo xamante ni waru ko woon daawu ko def mais ci biir combat bi même dóor boobu ñuy wax def koo dóor ci biir